boo génnee Daaru Muxti ci fan la boo jëmee Daaru Muxti la wala boo jëmee boori Kébémer waaye nag ñu xamal leen boo génnee Daaru Muxti jëm si Touba la boo génnee Daaru Muxti jëm si Touba maanaam diggante ma Daaru Muxti sax sorewul loolu bu ñu sukkandikoo ci source bi nga xam ne mooy jox xabaar bi moom ne daf cee yam euh, li tax nag siraat métti kon ni leen ko waxee Mbàkke Touba bi nga xam ne moo dajeeg bis bi ca kaw ay xale dañ faa ba doon daal nee ñu xale ya ay xale yu ndaw lañ xale yooyu nag tey bari ñoom lay jóge ndax kat moom daal nee na sur le coup na gàtt gàtt lu war a toll ñett nit yoo xam ne faatu nañ te am nañ sax yeneen source yu ñu jotaat yoo xam daal li ñuy wax mooy euh, euh, ñi ci faatu bari nañ ñi ci am itam ay gaañu gaañu bari nañ ñaan suñu boroom yàlla euh, daal mu gën cee def sutura waaye accident la boo xam daal mel na ni métti na lool ñu ngi koy topp Mouhalim info